caravane de la liberté continuera loolu kenn mënu ci dara. si policier Kolda kattan dem kattan sa yaay waay yow. si policier moo baawul. kay xol affaire ma xol sama tank bi euh ma ngi ci kanamu auto bos bi ba teel ma xol sama tank ha teel. c'est vrai waa moo ci door grenade bi quoi. non ci zone bi ci côté zone bi nii fii bon ça ira ñu demee ñu

ñoo waral ñoom ñoo ñun bu ñuy jot am maas xeer bi jóg. Gambar naka mu. ça va. donc lii moo xew ci Kolda Kolda dañ fi egsi il y a exactement une heure de temps. wante bañ fi yegsee dafa am ay ndaw yu ñu jël si fekk yoon bi yëpp amoon ay pono yu ñu taal ñu dindi lépp waaw waaye ba ñu dugg xale yi ba yegsi fii ngeen di gis la FDS yi baare yoon bi commencé dóor grenade lacrymogène gazé xale yi gazé convoi bi

Au nom de quoi Vous savez tous. D'ailleurs, c'est la seule personne dans ce pays qui subit ce genre de persécution de la part des autorités. Sa maison barrée illégalement en ce moment même. On signale à Stéker Gorgi, il y a la présence de policiers au nom de quoi Nous avons tous, Ousmane Sonko dérange. Dérange ses autorités. Ces autorités savent très bien qu'il ne reste que quelques mois à la tête de ce pays. Et Ousmane Sonko est la seule personne qu'ils ne veulent pas voir candidat à 2024. Peine perdue. Parce que s'ils ont vu la détermination de cette jeunesse, l'amour que porte cette jeunesse à l'endroit de Ousmane Sonko, chaque commune, chaque département où Ousmane Sonko pose les pieds, il y a des centaines et des centaines de personnes qui sortent manifester leur amour. Ce n'est pas donné à n'importe qui et ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est ce genre de dynamique qu'ils veulent casser en gazant le convoi. donc voilà ce qui se passe à Kolda ce et au Kolda Je naa ne ñu ak ba euh, la suite des choses. la mbay foo nekk amuloo di leen. nañu soog a tey gars yi. nañu soog a gars yi. non non. 2024 incha allah. Right. Thank you. fii la

Né? Tá. vai vai, vai, vai, vai Thank you.

Ada apa-apa ni dia bila. Kalau boleh, k a l boleh. Oh! Boy Messi naga-naga wuro boy boy. Boy wala. Ada yang sanggup apa?

nii la ñuy nekkoon di dem léegi nii la ñuy jëm waaw. waaw yow lii moom weesu na ñaaw sax waaye tourné leen oto yi ñu dem nee su ngeen jëm. otel ba otel ba rek. waa fii tout droit rek. Dorolé la ñuy jëm kay nañu jëm Dorolé kay. waa tali bi tali bi tout droit dañuy jëm. Deko deko Dorolé yaa rek. Thank you. Putting. Thank you. 老板，老板，你啷个样？ ¡Hala!